mais Ouzin. Ouzin foo jëm Ouzin lu tax nga génn heure bii. maa nga da nga lan. ah da nga jàng da nga jàng jëm ni yaa ngi côté say euro de. xaw ma leen de. wuy ma ah. ñu xaw ma leen. nga ne côté say euro la wuy ma. xam nga say euro. manager woykat mag bi. non man ñu xaw mais ménage rek woykat mag bi. man a laa a ay année mag bi xamoo ko. mais fii day jaay affaire yu baax ah. jaay ma bi dëkk kaay. mais ziar nañ ñëw. maa ngi sant mu tey dañ a gis génn heure bi di doxantu. waaw man man nag euh, du ma fay di génn bëccëg. waaw saa ma génn bëccëg nga saa ma génn bëccëg ma xam ne soxlaa yow damaa jàng yoon. naa hmm, jàng yoon léegi da ngay jàng daal lu jàng anglais wala français. non voilà yi. Euh, tuuti français tuuti français. Euh, tudd français. Uh-huh. Euh, anglais bëri ndax anglais mooy uh-huh. original. anglais mooy international daal. ok lu tax ñu gën a gis gis nga bi nga jógee France boobu ba léegi euh, yaakaar naa li nga génn bariwul parce que yow yaakaar naa pour nga génn ci tuuti des bi te ñu gis diggante sa doomu ndey Mbaye Kouthia ki nga xam ne moo di Pawlish coow li wër na àdduna. bàcc suñu tàmm nit du fossé xam nga àdduna Pawlish Mbaye liggéey ne ne neen moom boo nekkee artiste da liggéey. def ñu ñu xamee sañu nga teg dil fen fii mbay ko teg ay dil dil dafa jeex fii da fii da nga te bàyyi dil yi arrêté mbay ku mun nga duul wala mun nga duul ay fenkat na ne kon da nga gis ne Pawlish Mbaye li muy def ay teg dil la non ma fii Sénégalais bu kenn ndax Sénégal ne Sénégal nan Sénégal xam nan dofuñ dañ jàppoon nit da ngay def nit booy bë da ngay bës moom na day nattala du forcé ba ma ba ma ko caa bëri bëre bi deful waaw bëre bi combat la woon rek. buñ leen yow bëre nga fi ak Pawlish. Eh, waaw dafa bi yoon Pawlish moo ko ton parce que moo ko ne moo toog ne Pawlish day jaay li nga xam ne mooy. boole mais loolu nit ko lan la koy waxtaanee nii loolu. da ngaa fàtte da ngaa fàtte da ngaa fàtte Ablaye Mbaye. xam euh, léegi gis nañu Ablaye Diop Khass euh, mooy yoon woo jubale leen vraiment. seen biir waaw waaw ma taawal. donc ay eh, kaay kaay non non Ablaye Diop Khass. Eh, moo la njëkk a may ontaru or waaw man sama kanam maa taxaw xaar ko mu gis ñu gis ne ku fi xuloo rek moom moo lay moo lay jubale mais mu leen jubale ñoom ñaar ñu xeex seen biir encore tëmbulu ñëw encore wax ak mbay en tant que ba nga gisee yëpp lan nga ci wax ma loolu ma ci wax lan lan moo xaw lu ma ci wax sumb après do xaas sumb sama nit ñëpp laa si koy jàmm salaam xaas nag gën a gis leen jubale ci euh, Pawlish jóg dóor mbay est loolu en fait lan nga ci wax yow ma laa ban kay sax lu ma acte du ma dóor lu tax ñuy duma ma man. te Pawlish xam naa. peut-être ah. ah. na xeex ba fàtte oh, ñu gis ñu gis ñu gis ki nga xam ne yaakaar naa waaw ñu gis ne ki nga xam ne. Hmm, mooy Pawlish jubal na ñeen Pawlish Dior euh, mbay jóg Dior mbay mbay euh, saaga ko. waaw est-ce loolu waroon na foofu ci ci kanamu Abdoulaye Diop Khass en tant que kilifa. parce que El Hadj Fallou Mbacké nit. kilifa. Mhm. day nag kilifa xaas sama papa la. Mhm. xam nga tey bëgg bëgg du bañ. Mhm. si na man la bëgg. ndeysaan xaas ku mu wax ku bëgg. waaw ku nga dëgg la woo ko dëgg. xaas man la bëgg. semaine la wuy ma jënd café limon. café limon waaw. damaa tooy. xaas yow bëgg sa xarit la sama gaay la sama papa la. Euh, xam nga taxaw nii sax mu nekk daa am nga dugg ma bëgg. te dafa gaaw. xam nga doomu aadama li di forcé. Abdoulaye Diop xaas ak Pawlish Mbaye. am mbay Kouta. bàyyi leen bëri xam nga gëm moom mën bés jàmbaar ji moom mën bés li daan ma xam ak dem eh ba sàjjee dëkk bi yëngu da bu may bés bu may bés du ma kase samay mbool équipe nationale ñoom may embrase mm-hmm. ñoom maam njare eh, ñoom ko ñoom ko ma lam maam ko ma lambaay ñoom ko ma kastel maam Ndiaye ñu ñoom sa pay ñëpp a may song sa diggante ak ak ak maam Ndiaye Savon lu gis naa wax ci maam Ndiaye Savon lu bari ah, ma ma ma sama sama nit la maamu ndaw waaw waaw ah, doo taxaw ñu ngi ci ah, allo kookal la waaw waaw baax na da da may rappelé dama dama nga ne ko ko doon topp. waaw baax na waaw waaw kontaan naa waa sëñ bi. tey gis nañ aussi tam diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko dëkk bi yëngu na. am na yow. ay saa yoo ko métti. ay li ko Ousmane Sonko nga dàngin nga waaw loolu waaw loolu dama yuux loo loolu dàngin ni mu ko ne dàngin nga ay sartam génn na ko dàngin gi am na ndam parce que yow nangam ba nga bàyyi say jabar topp waaw xam nga xam nga xam nga àdduna fii góor gu góor la fii góor gu jigéen gu manqué ñu kat la baras ba baras sa ndey asa moo manqué ba Sonko kat ko mais itam est-ce kilifa dina ko wax wax naan ko ay dàng est-ce que kilifa dina waxee noonu di xas sante Sonko daal poème la ay saa yool yow da bu Sonko ay sa manqué ba suma kat ko moom la man katante sama yoon sama fu waaw. ah waaw maa ko man kay tam maa ne. ay sa bu manqué yoro datam Sonko yor kooyam bu ko katee sama fu nañ katante seen bi fii ku mu nekk katante ñëpp a katante fii ku katante guddi ka katante ba ca katante suuf oto yi dëkk baa ngi doon dëkk baa am ñoo xam ne jigéen amee de katante am ñoo xam ne tëgg si oto mu sa mbir kee yoo xale xale yi fay tëddante waaye yoo sa mbir kee day tëddante lii daal nga wax yow. waaw maa ko wax. waaw il ma naan. mais le 3 la centre di foofu woykat mag bi jëm. fay ak yow samay nekk si yow bi woykat mag bi wax dëgg yàlla samay nekk si. yàq yi nag moom mais est-ce que surprise est-ce que mënuñoo gis le 3 surprise surprise parce que am na lu may dégg ah, lu jëm ci yow est-ce que surprise mënul am parce que yaa ngi sa visa instant yow sa visa mu ngi mu ngi en cours. visa jeex na. waa xam oui man xam nañ lépp instant yi jeex na surprise mën naa am de ah. yëppati yabaate ngeen. fan si la a fan fan si la xam nga lambar lambari ku ne. yow sa génn bëriwul man man 10 ans carrière. waaw. kaay ma xam dëgg sax la yëgul kaay ma kaay ma la damaa fecc damaa ans. woy 10 ans. Mm-hmm. di 20 ans. waaw ba xale ma ko sax ans ma maa ngi ci aar bi. Mm-hmm. merci beaucoup. ok wasalaam. Sénégal nag euh, dama benn kàddu laay wax xam nga mm-hmm. Sénégal dafa wóor man du ma gis woykat bi. maa moom xamante ne baax a baax. ndeysaan ñett xamuñu nit at na dafa entourage na xas entourage am. entourage ñu nekk ay dëmm boo bëggee bu buntu place ma wax ko fa xam nga man lépp du ma. wala man xam nga ñemewu ma xam nga xam nga ragalu ma. Uh-huh. moo tax ma ne place baa ngi ay dëmm nañ waaw. mais est-ce que xam nga yaa ngi da ngay taxaw de. mu noonu waaw baax na jaajëf merci beaucoup demal waaw ñu dem doxalal ok. aja doom day